suñuy jaar-jaar daal dañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam daanaka seen YouTube bu Ndiamé TV bësal na station bi ñu tàmbal la foofu nga mën a ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour. bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim jërëjëfati serigne Touba jaraw lak mam Cheikh Ibrahima Fall jarama Cheikh Moussa Cissé Ndiama borom daaru jërëjëfati serigne Touba jaraw lak mam Cheikh Ibrahima Fall jarama Cheikh Moussa Cissé Ndiama borom daaru jërëjëfati serigne Touba jaraw lak mam Cheikh Ibrahima Fall jarama Cheikh Moussa Cissé Ndiama borom daru Cheikh Abdoulaye sar yàlla yalla yok leeram te taas ci barkem si isar yal ne yal yok leeram te taas si barkeem si yal na yàlla yokk leeram te taas si si Jegaan yal na yàlla yàggal ko te feeroo wëral ko Katanal ko barkel njawotam isair aksi batin. Nyingi eh, nyanal nyinga ngi ñaanal ne ñooy ay natangom ci liggéeyu Cheikh nga xam ne la andal ci liggéeyu Cheikh Moussa ñuy ay sahaba yi andon ak Cheikh Ablaye sar suñu xel dem ci ñu jitu ñuy ñaan borom bi dolle len ay leer te tass ñu seen barke di ñaanal ñi fi dess yalla yagal len suñu kanam te wëral seeni jëm ba ñu yàgg nekk suñu kanam si liggéey bi su ko defee ñuy ñaanal Cheikh Souley mi nga xam tay mo fi wutu Cheikh Ablaye sar momu si zahir ak si batin ñu diko ñaanal yalla wëral yaramam wëral xalam yok xam-xamam te tek ko loxo wottu ko sam ko guddal fanam lol. be li ñu li ñu yéene won Cheikh Ablaye yéene ko Cheikh Moussa yéene ko ñim andalon àndaloon ko yalla motal ko si mom ci barke Cheikh Moussa su ko defee ñu koy nuyal ay ganam yëpp di dolli ci li leen Cheikh Maam nuyu woon waaye pour bañ guddal rek ñu jël nuyoo bi di ko jox kilifaam Cheikh Omar Cissé mu jottali ñu ko mi yëpp rawatina gan bu tedd bi nga xam ne moom la ñuy xoolee yonent bi sallallahu alayhi wa di shérif. sii di ñu ngi lay dalal di la masawu coono yi di la baalu àq te di la baal àq wante di la woo ci jataay bi nga xam ne ñun ak yow ñoo ko bokk su ko defee suñu xel dem ci na ko sa maam waxe woon bi alxuraan wàccee ci moom ci baat boobu la nga xam ne ba muy wax ne maa ngi leen di woo ci benn baat bi nga xam ne man ak yéen ñoo ci bokk yem te mooy baat bi ñuy jaamoo yàlla ba dootuñ ko bokkaale jataay bii baat boobu rek moo ko waral muy baatub laa ilaha la kon kàddu boobu lañ lay nuyoo moom lañ lay dalale si kilifa yu tedd yi suñu xel dem ci Cheikh Ibrahim Cissé mi nga xam ne yàlla moo ñu ko baaxee ci gox wi ñu di ko ñaanal yàlla gudd fan bu ànd ak wér eh, ñun suñu gis suñ ko gisee dafa am lu ñu yàlla di fàttali lu bëri ci Cheikh Ablaye maam wax na ko sànq mu tax yàlla nga yàgg a teew si dëkk bii yàgg ñëw di feddali liggéey bi di feddali kóllëre gi sa diggante ak sunu maam Cheikh Ablaye moom mooy jëmm ji nga xam ne man mii nga xam ne maa gën a xeebu ci daara ji dund naa fukki at turam turam dund naa ko lu fukki at door a gis jëmm ndax ni Cheikh Ablaye fi ko Cheikh tegoon di wax ci moom njàmbaarte ak pas-pas ak yitte bi nga xam ne moom la doon def digganteem ak Cheikh mosaa ba ñu miin turam lool te gisaguñ jëmmam kon Cissé ñu ngi lay ziar bu baax di la masawu coono yi ndax jëmm ji moom wax dëgg yàlla xam nañ ne am na lu mu mën ak lu mu mënatul wante yàlla yàlla dolli la wër yàlla gën a wëral jëmm ji bu baax bëgg nañ nga yàgg fi lool donte saa yi ñu dajee nga di ñu kurpeñ waaye dañoo bëgg nga yàgg fi nag <laughs> jërëjëf kon su ko defee ñu ngi ziar ñëpp. di masawu ñëpp coono nag ci bis bii ak saa kon eh, cheikh maam mu ne cheikh Birane Sarr xel mooy fatu wante ci jëwriñ yi la bokk ci jàmbaar yi nga xam ne ñi taxawee liggéey bi ci sa tàmbali ba tey ci la bokk mu féetee si goxu suusung sandoog mi ngi fii teew ak Cheikh du Maroon nga xam ne sang bi bu doon lim juróom-benn yi jiitu ci daara ji def ko ci boole muy Cheikh du Maroon jamono bu sang bi doon lim juróom-benn wala juróom-ñaar ñi jiitu ci daara ji man doon naa ci dégg turu Cheikh du Maroon ak turu Géej Diouf kon ñu ngi leen di nuyu te di leen ziara di leen masawu coono yi di leen ñaanal ngeen yàgg fii yàgg nekk suñ kanam di ñu yokk fit ndax ñu melni yeen bok nañ ci ñi nga xamne ñun ndaw ñi buñ leen gisee rek dañu ñame kon yalla na ngeen fi yag su ko defee pour ñu baña topat rek jox ñu ñepp suñu loxo xol ci turu Cheikh souleyman di santat yalla bu baax ci fekke gi ñu yalla fekke la wat bes bi am ñi teewoon fi daw ren teewuñ fi tuñ ko wala ñu ñew ñi ko fekketul yalla yalla doli len yermande ak njegal ak ngeermande ñi nga xamne ni tawat motax tax ñu yalla borom bi teggi ko bañ dalu ci sen sago ñi nga xamne ne wëradi moo leen téye borom bi delo len sen sago kon sante yalla la bu baax ci lu mel nii te dinay fax ne nit ñi amuñu temps rek jël alal jël baas bii nga xam ne alal ju bëri moom lañ ci def ak li ci biir yépp ngir rek am jot déedéet te liñ am bëri na ñu ko amoon jamono dañu ko def ci roog seen ba xëy yàlla kon tey baas bii buñ ko defee xëy na ñu ëpp ci ñi fi teew taxuñu wante ñi nga xam ne kàddu gaa ngi tukkee ci baas bi di dal seeni nopp ñoom rek a tax te loolu yërmande yàlla kese la yàlla dafa woon yónent bi ne yónniwuma la ci jaam ñi lu dul nga nekk seen yërmande arab yi wala aay yi danañu ko bàyyi ak Cheikh saaliw su ñëwee mu leeral ko wante li ñu ñor arab bi dafa wax ne jataay bu nekk ak lañ fa war a wax mu dëppoo ci ak olof bi dëppoo ci ak tubaab bi tubaab bi dafa wax ne l'expression n'a de sens que dans la texte kon jataay bu ne ak lañ fa war a wax jataay bii nag jàpp naa ne ñaari mbir rekk am solo ci wax ko fi mooy ki doon baas baas bi tey ba nekkatu fi ci saayir lan la fi def ak lan moo sabab jataay bi ak luñ def ci moom ba tey mu woote bas bis bii ba tey ñu donn ko ci ñaari mbir yooyu rek moo am solo ci jataay bi kon dañu tàmbalee ci Cheikh mi nga xam ne mooy jëmm la joo xam ne mbudaayay cosaanam mu am jaar-jaaru saayir yàlla defal ko fit mu doon góor dëgg jàmbaare ba jàkkarloog moom wax ko sa soxla sax jafe waaye njàmbaarug Cheikh Moussa ak yërmandeem ci la ko dimbalee tey ba muy dimbalee li ñu nar a wax yépp nag ay kàddoom la ñu di ko ñaanal yàlla nañu ko yàlla fayal góor googu man dama wax ni su fekkoon ne mënoon naa bind danaa bind ci moom téere te maa ngi ñaan képp koo xam ne bindkat nga rek jege ma ñu dimbalante ci lii moom may dikkal léegi nii képp koo xam ne yàlla may na la mbind rek jege ma ñu dimbalante ci ndax xam naa ne moom bibliothèque la waxuma ne livre la de bibliothèque la jëmm la joo xam ne wax ma ma ne keroog bu muy ànd ak Cheikh Souleymane ñaan di dem ci Cheikh Moussa ñuy nuyuwaale suñu maam ju tedd ju baax boobu jàmbaare Cheikh Moussa boobu yonentam mbutaay boobu yàlla féq fanam te waral jëmmam yàggam fii am na njëriñ de xam naa ne ku Cheikh Moussa gërëm la te ku ko liggéeyal la it nag kon yàlla na fi yàgg bi muy ànd dem ak ànd ak moom di dem ci Cheikh Moussa bi ñu àggee ba nuyoog Cheikh Moussa Cheikh Moussa toog si lal bi nee na daa ñëw toog ci wetu Cheikh Moussa ci kaw lal bi. Cheikh Souleye ngi toog ci suuf Cheikh Souleye ngi koy xool bët wàccal waaye moom nee na wàccul ndax gisagut lu ko lu ko wàccaloo lii mooy fulla bi dafay am fulla damay wax ne jamono li fi xew ñaar ñii rek ñoo ci responsable mooy njiit bi ak sàkkukat bi sàkkukat bi nag dafa war a mel ni moom moom Cheikh Ablaye bi mu ñëwee daa toogandoog Cheikh Moussa ci kaw lal bi moo tax doon wax ne Cheikh Moussa jamono moo fi ma yërmande ndax nee na ci noonu mu def rek Cheikh Moussa mënoon na ko cee yàq moo tax moom amul sago ci mu saa waaye nee na bi mu saa di wax ak moom di wax ak moom di wax ak moom ba li li ko dugg dugg ko ci la daal di wàccal boppam kenn wax ko war ca moo wàcc daal di tàllal mu saa loxo yi ndax ba muy ñëw nag nee na déggul lu ko convaincre nag na leer. kon Cheikh Modou Cissé bu Thiès mooy dugg si noonu ñu ngi koy ziar di ko màggal jàmbaari Thiès yàlla na Thiès gépp nangu la Cissé ñu ngi lay ziar bu baax jërëjëf su ko defee bi mu wàccee te moo wàccal boppam talal loxo Cheikh Moussa Cissé Cheikh Moussa nangul ko yëkkatiwaat ay loxoom teg ci loxo Cheikh Souleymane ñaan ne ko boole naa la ak moom ndax mbir dafay baax ñi ci ñëw xam taarix bi te li may wax kenn nettali moom moom moo ma ko nettali boppam neena na biñ noppee ba dem diir daf ko ne saar mu wëññeekuwaat mu ne ko su taalibe yi ñëwee na leen dimbale saayir ak si baatin ci loolu nag la nekk ba xëy wuy ji boromam loolu wóor na ma wóor na keneen ak keneen ak keneen ñu bari jëmm jooju nag ci la toppe te ku jëfe ndigal la nag taalibe dëgg ngi noonu Cheikh Moussa digalaat na ko leneen nee na ko bul mos ñëw siyaar si daaru mukk te àndoo ak kenn ci magu daara yi moom mooy wax de bés muy siyaar si ñëw ba pasi nee na ku laaj ñu ne newu fi ba am ku ko ne a ah, Cheikh Ibrahima Cissé bu kër Babou Koumba de nekkoon na fi mu ne ko fu ma aw mu ne nii la aw mu topp ko ba fekk ko fa nee na ba muy fekk Cheikh Ibrahima Cissé caaya la sol ak forog mu ne damay dem daaru te sëñ bi def maa doon bul def mos a dem daaru bul mos a ñëw siyaar si te àndoog magu daar yi kenn moo tax ma gëm ne pasi gi am na faw rek am na magu daara bu fi nekk mu ne ko kon may ma ma dem soli grand boobu bi ñu dem mu ne ko dootoo dem nee na forog boobu ak caaya boobu Cheikh Ibrahima Cissé moom la yóbbu daaru lii ñor ci wax ji mag mooy lii ñëw dafa wax ne biñ àndee ba yegsi ci xaal bu tar lañ fekk Cheikh Moussa nee na biñ ñëw fay bu gàtt la leen Cheikh Moussa fay ne sant leen yàlla sant leen yàlla sant leen yàlla ci boole gi ma yàlla boole ak yéen ci darajay xaadim rasul ndax ñi yàlla yu mos a yónni dem nañu ba seen diggante ak xaqadu Muhammad ya des ju juróom-ñaar fukki junni kiiraay foofu la ñu ak seen i ñu dëpp waaye yàlla moo ma boole ak yéen ci darajey xaadim rasul ma dem ak yéen ba seen diggante xaqatu Muhammad yi desul benn kiiraay nee na Cheikh keroog ci la dafa yëkkati ko ba ci kaw dóoru ci suuf aalu na fa lu tolloog bi bi la maam di tàmbali wax ak léegi nee na diir bu gàtt bu yàgg Cheikh ma nekk na ko fi di aalu moom mu mel ni yëgul li xew sax pour woon na ne Cheikh Moussa li mu joxe. mboolem ñi ko mos woote lañ ci doon làq moom def kaa làqar ci ba mu leer xëy na wax ni gàjj gi sëriñ si waafoon di nax taalibe yi gàjj naa ko lépp a ngi ni fing loolu ñëpp dégg nañ ko ci kaset yi li ma doon wax waxu Cheikh Ablaye Sarr la waaye lii ma wax waxu Cheikh Moussa Laye te ñu bëri dégg nañ lii ci kaset yi kon sëriñ si li xew ci jamono nga xam ne yàqute jamono la ñëpp constaté ko ma ne ñaar ñoo ci am responsabilité muy sëriñ si ak taalibe yi wala njiit yi d'une manière général njiit yi nag njiit àdduna yi ak njiitu diine ji kon njiit yi ak ñi ñu jiite dañ ci am responsabilité loolu nag benn saafara képp la am ndax kenn moo yëgoon yàqute jamono gi te am ci pexe nee na ab bu amee ku ko ñaaral alaaji Ibrahima Ñas la ca Kaolack njàmmee ko wax nee na paanu oto bu mag bi ñaara ko yëg moom la ak alaaji Ibrahima Niass ci Kaolack mu ne alaaji Ibrahima Niass xam na paan bi am na ay kele waaye ñemewut paan bi nee na man Ndiamé Cissé xam naa fi paan bi nekk ñeme naa ko laal waaye amaguma ay kele moo bi mu amee ay kele lépp leer na bi mu ay kele lépp leer na te kanam la jëm ma dolli ci ne menum Cheikh Moussa moo génn àdduna te yóbbaalewul benn mébét loolu sama wax la ndax li mu bëggoon yàlla defal na ko ko daanax ni maa gën a tabbe yàlla su ma doon yàlla damay sakk benn mbindeef tabal ko safara mu fees ko del ñëpp dem aljanna loolu it lay na ko ci biir néeg ndax lii mu doon wax waxu biti la lay na ko ci biir néeg te loolu Cheikh Omar mais xam na ci dara Cheikh Ibrahima Cissé xam na ci dara kon Cheikh Moussa moo dëggal ci kaddu bi yónent bi yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba muy wax ni umirtu an yuqaatilu naas xataa yaqulu laa ilaha illallah diimaahum wa amwaalikum bi xaqi laa ilaha illallah mu ne jóg leen ngeen reyante ak nit ñi ba ñu nangoo wax laa ilaha illallah mu ne reyante leen ci ci seen alal ak seen doole ak seen deret ak seen njaboot ba mu ñëwee nag def koo defee d'une manière extraordinaire moom Cheikh Moussa bi mu ko reyee ci sangam xaadimu rasul ndax Serigne Touba daa xëy wax ne dinaa yeesal islaam na ko Muhammad defe woon ca Makka te xat du damm deret du tuuru te defe na ko noonu it nag Cheikh Moussa doon na wax ne Serigne Touba moo jihaad reyut kenn reyluwut kenn kenn reyu ko mu ne kii moo jihaad te ñëpp seede ne jaloore moom boroom a koy nettalil boppam jaloore boroom koy nettali Cheikh Moussa bi mu ñëwee daa wax ne dinaa yeesal yoonu murit ba mu mel ni maa ko sos def na ko ci lu leer nañ leeral na ko sax lu gën a leer ni mu ko fi fekkee xam nga lu tax Cheikh Moussa li mu woote dong moo desoon ci yoonu murit li Cheikh Moussa woote moo manqué woon ci yoonu murit Serigne Touba. li Cheikh Moussa am la amutoon mooy lan mën a weet ak taalibe yi di leen dimbali ci yaatal moo taxoon muy bind rek di bind rek di junj rek di tegtale rek Cheikh Moussa nag daa xëy wax ne nit ñi bala ñu doon xam sëñ Tuubaa dëgg ñu yóbbu woonoo comme niñ ko yóbboo waaye fii laay wootee fii laay wàccee liggéey kenn du ma yóbbu moo tax def na ko it nag daa xëy wax ni talal naa sama loxo ba te Tiwaawan Njaasaan ba Makka gisaguñu ku lem loxoom bi ku ko gis wax ma ku gis ku lem loxo mu saa bii kaay wax ma li sëñ Touba wax ne noonu lañu amee xam-xam bi moom loolu la am loolu moo tax yoon maanaam wooteem gën a fës beneen ba mooy ci ay ndaw la ko def paa yi buñ koy jot ay jeunes lañ paa bële borom sikkim bu weex bee ba mu koy jot ndaw la Cheikh Moussa ay ndaw la woo ay ndaw ko wuy si ay ndaw la dimbali moo tax mbiram ba faw day dox sëñ Touba ñi ko njëkk a wuy si yëpp ay màgget lañ saa yëratan ñenn ñee ko mag foofu moo tax ma ne li Cheikh Moussa am la sëñ Touba amutoon moo tax li manqué woon ci yoonam bi moom la Cheikh Moussa def kon wax nañ leen kuy Cheikh Ablaye Sarr bi mu jógee mbudaay ci la ko yàlla daal di ëf ëfu ko brise de ndax kon nee jëm brise xarfu lay jógee jëm penku lum ko ëf jaas la ko ëf mu daanu ci fii bi mu wàccee wàcc tribano gee ñëw nekk ci juuti bi di wax ba daje ak sama sang bi Cheikh Diegane Diouf yàlla na ko fi yàlla yàggal daal di koy tàllaleer gi ci tënk ca la bunt bi ubbeekoo nag te ba yomal xiyam dootu tëju ci la dimbalee mag ñu tedd ñu baax ñii may wax ne ay mag yu gore lañ ay mag yu baax lañ ndax jàppoo nañu ak moom ci liggéey bi ci fànn yépp ba tey liggéey bi taxaw kenn ku ci nekk mu delloose sa cër ba mu mat sëkk te dara wàññeeku ci Cheikh Souley mi tamit bi mu ñëwee wàññiwul cër kenn ci li fi waajuram fekk bàyyi kenn ku ci nekk dafay dooleel sa cër wante wàññiwu ko kon ñu koy ñaanal mag yooyu yàlla nañ fi yàgg ak moom di dimbalante moom ci liggéey bi kon wote bi mu wote nak mo law tay ba tay bes bi am muy dox bay joge Tripano jaar bay ma Masseer ba xey wacc daru salam gi te wacc gi mu wacc fi sax manam mbir nit mi waro nañu xolaat fan la wacc daru salam, way jamu yalla yi wa mbur dimbale leen seen yërmande yàlla la woon fii biir mbuur wante particulièrement fii mu dëkkoon jàpp naa ne bu ñu defoon micro trottoir tey dina bëri ñi nga xam ne bu ñu waxee seen xol tooy ci dimbalanteeg jaamu yàlla ci mbaax donc ku bëgg njaboot nag njabootu saayir ak bu baatin moo ci yem ku bëggoon njaboot waaye li ko ñoroon mooy leerug yàlla gii naka lay def ba mu yaatu dimbalee na ci jaam ñi nu ne maanaam jiyaadee na nu ne jiyaat na ci poosam jiyaat na ci dooleem jiyaat na ci léppam te looloo ko may lii kon far xejootul liggéeyu saa boobu ma xëy na ko fa ñug fas yéene tumuranke nag ndax tumuranke maanaam aada ci wooteeb yàlla bii mu ñeme ko lool nag daj ci lu ne gis ci lu ne waaye am ci lu ne nag mu gar ci bakkanam ba xëy wuy ji boromam yàlla na yàlla yokk leeram kon bi mu ca mooy woote Cheikh Moussa bii la yeesal ci gox bii di biir Mbour wante Petite Côte ak bépp gox ci senegal Siar daro ren bi yaakar naa ne bi ñu siyaar Cheikh souleyman ñaan lam wax ñepp dégg nañ ko daarooy forage bi mbudaayaay mband mi bu mag bi ñew mbur fenen fu ko jotati fi la jaar la yalla dogal kon li Cheikh Moussa woote shérif liñ lay seedeel ndax amaana yaa ngi dégg woote njàmme daaru bi li mu woote mooy li sa maam jëflante woon ak Seydina Aline jëflante ko Omar Ousmane Ababacar ba yalla di wax suma ma Cheikh Sall bu ñëwee dimbalé ma ci di wax ni waru iyaka lati arayna ila fitnatan linas Hakasa. hakasa way waaye liñ ci jublu moy gis gi nga ma gis soko waxe dina ye fitna sa digante ak jaamu yalla yi lolo ñu ci ñor woote boobu nag tàng bi mu tàng fitna gi mu doon moo taxoon ñu ci bëri bi ñëwee bant lañ ko laale ku nekk ginnaaw Cheikh Moussa bi nga ñëwee bant nga ko laale waaye bim mu ñëwee lu ko xamal ne tàng na Cheikh Alpha lu mu tàng na wit ba ku laal xakk sa xakk sa loolu la ci yëg kon dafa dugal loxoom dugalul baaraam bi de ñun ñoo dugal baaraam waaye moom ba mu ñëwee loxoom la dugal moo tax mu yëg ne tàng na wit bokku mos ku laal lakk waaye ku mos nangu loola yàlla dogal ñii ñëpp li li indi mbooloo mi mooy ku ñëw soo fa jógee ki nga gën bëgg moom ngay ñoddi kooku dem ku mu gën a bëgg la ñoddi kooku dem ku mu gën a bëgg la ñoddi te ku ñëw dootoo dellu moo tax ñu ne kaas la yor te kaas boobu yàgg na fi de kaas boobu sëñ Tuubaa na moom la yoroon de ka oosoo ka tasqini bi xaasa busaaratin wala xuuta faydal ahjabal barka wal fulka wal fulka wante kaas bi rek lañ ci jublu kaas boobu it alaaji Malick wax na ko de yasqil muridina min kasil wusuli ila qadil muradi lazi yas lazi askana ma waaw gis nga kon kaas ba la ba tey ba mu ñëwee kaas boobu la yor waaye du kaas boo xam ne ci gémmiñ lañ koy naanee kaas ba nopp la gis nga ko ci nopp lañ koy naane kon Cheikh Moussa loolu la woote shérif góor gi ñu tàntal fii ñu koy wax Cheikh Moussa Cissé lii la woote dafa ñëw yeesal ci wooteeb Serigne Touba Serigne Touba daa yeesal wooteeb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon calala baa ngi nii kon bidaa la ak du bidaa bu fekkee ne wuute na ak alxuraan ñi jàng alxuraan xam nañ te daa waxoon ne ku jàng ñëwal ak say téere ku jàngut ñëwal ak sa xel mu rafet kii moo yaatu woote te selub woote kon responsabilité njiit mooy fexel ba ñë nga jiite la nga leen yoreel nga jox leen moom amoon na lépp li sëriñu jamono di tiitaroo moom Cheikh Moussa loolu it sama wax la di way sama maam seexu sëñ Tuubaa woon ñu bëri moom la ñuy tiitaroo amoon na ko ba noppi waaye daa xam ne mbir mi du loolu mu xëy wax ñi ko toppoon ngir darajaay baayam mu xëy ne leen bu leen ma liggéeyal ci kaay leen laaj ma li ma leen yoreel kii moo maandu kaay leen laaj ma li ma leen yoreel loolu la mu saa woote tey nag sëriñ ñu jamono ñun ñëpp xam nañ ne ku leen di liggéeyal lañ soxla ak ku leen di jox alal moom amoon na ko ba noppi moo xam ne lii du mbir mi dafa bëgg cëru boppam muy jël cëru baayam teg nii ci wetam dem yóodi ji cëru boppam jaar yoon wi góor ñi jaaroon ma ne lenn rek la fi woote loo xam ne tey moo waral coow li kaay leen ma woon leen yàlla la wax jàpp nañ ne ci ginnaaw nag ñu bari wax nañ ci gis yàlla wante mbir mi li ko may coow kaylen yàlla la di woné bi moy wax ji te Cheikh Moussa li mo doon liggéeyam kon li la fi def li la def ci Cheikh Ablaye sar Cheikh Ablaye sar lool la doon liggéey lool la fi woté mo waral baas bi mu xamal nit ñi ne serigne ak talibé du kër du askan du dono te loolu it fekkon na sangam bi wax ko ndax wax ne kër gu nit juddu kër kër gu nekk ku juddu ci kër di sëriñ ku juddu ci kër di taalibi nee na amul fenn ndax fii kum mën a doon alaaji Maalik njëkku la sant si maam Ousmane mii waajuram njëkku la sant si waaye tey taal bi ñu taal ba tey ñi waa Siyeen di di leen loolu sosuñ luñ sos la ñoom kon fekkoon nañ si ne fi waaye tey ni si mel melu ko woon Serigne Touba sosul Mbacke njëkkut a euh, sant Mbacke waaye tey ndam li Mbacke am daraja bi Mbacke am fekk ko fi loolu nag moo law moo rogalaat ba ci sixième Cheikh Moussa moo rogalaat ci saarum Cheikh Ablaye Sarr moo rogalaat ci mboolem ñi jëflante ak ñooñu te te jaar seen kerkeraan Cheikh Moussa lii la def bi kum laal kumu laal ka kooku laal ñëppay niin ndax nee na sama mbir mii diw la ci malaan dara mënu koo tere law nee na wootem bii kanam la jëm kum neex kanam la jëm kum naqari kanam la jëm te gis nañ ñoo xam ne seen bakkan lañ tegoon ngir du dem fu ñu mujje ñoom ñoo ko wuute waaye mi ngi dem waajuram di taalibe Cheikh Ahmadou bàmba mu jaayante ak waajuram ba waajuram gërëm ko yebalaat ko sangam ndax xeeb na ci boppam waajuram mi ngi tudd Mohamadou Khoureja Mokhtar Cissé gërëm doomam ba yebalaat ko ci sëriñam sëriñam def ci moom ba def lu kawe njortu waajuram moo waral coow lii Cheikh Moussa nag wootewul leneen woowul kenn jàngal ko kon wootewul njàngum alxuraan wootewut julli wootewut koor wootewut asaka wootewut dem makka dàq ci dara nag waaye wootewu ko de ndax nee na amul lum ci yokk bindu téere tamit nag ndax nee bu bindee dafay mel ni dafay xëccoo ak sëriñam waaye nee téere yim bind ñooy tari seen bopp benn a ngi ci téere yi loolu la def ay kilifa yuy jàng di jàngale ci réew mi demoon nañ seeti ko lam leen tontu woon yëg nañ ne moom moo am dam seen kaw lam leen waxoon def na ko kon Cheikh Moussa moo nekk noonu li mu def mooy ay ndaw la jàpp foo seeni xol tabal si leeru yàlla kon ndaw yooyu nag engagé nañ responsabilité bu am solo kon moom Cheikh Moussa li mu bëggoon ci ndaw yi mooy ku mu noppi ci yow nga doon ab Cheikh Moussa bu sotti na nañu yëg ñun ñëpp nag ne ku doonoon ab Cheikh Moussa ci gox na nga yëg ne ci yow la manqué waaye desul ci musa Moussa Cheikh Moussa lu mat la joxe te ku jaayante ak sa bakken ku jaayante ak sa bopp da nga doon Cheikh Moussa mu sotti kon ku dem ñu di la móolu ngir Cheikh Moussa yaa tuddee sa bopp taalibi Cheikh Moussa wante doonoo ko yàlla kenn du ko weddi ñetti at taalibi Cheikh Moussa. moom laa ci ab gox xëy ne kaay leen ma won leen yàlla ñu di la weddi benn at ñaari at ñetti at ñeenti at meloo ni nga war a mel Cheikh Moussa ku mos a jamonanteeg moom boo ko bañee it yaboo ko kon kuy taalibi Cheikh Moussa ngay romb ñu lay móolu sa meloo tax ñu lay móolu wante du xam-xam bi ngay woote ndax lu baax kenn bañu ko kon ñun taalibe yi lan mooy suñu responsabilité ci ginnaaw bi ñu Cheikh Moussa baaxee ba noppi mooy ñu fexe defaru ndax xam-xam bi jeexitalam ak defaru kese la asalaamaaleykum wa rahmatullah suñuy jaar jaar daal dañu nekkee ndaw dañoo su ko xaari doon seen YouTube bu Ndiamé TV bësal notification bi ñu tàmbal nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour